sa xeex sànq ne nga dép décurpissement bi euh, am yo dëkk yoo amul joxe nga exemple li nga xamante Amerika, moom mooy Amérique Amerika nag mënuñu méngale Amérique ak ak ak Sénégal quoi qu'on puisse dire parce que la yu Dembo rek le 17 juin 1995 hmm. ci la Qatar juddu hmm. bërki Dembo Ndiaye boobu judo nga boobu man fekk na ma am am fekk na maam gel mën la ci développement Qatar commencé Qatar amul marchand ambulant Dubaï amul marchand ambulant d'accord foofu li duñu parce que dañoo sommes ay nit gis nga Amérique mhm. Sénégal ñuy wax leen boo Amérique France doole mhm. non mais loolu waxi ci la gis nga Amérique ak France fi ñu mhm. li tax mu amuñu référence ci sen kanam. amuñu woon ku leen mënoon joxe exemple ñom dañu ñow xal yoon yi mu nekk ben exemple bu terre à terre war ci mëno a roy jaar ci dem sen yoon kon loolu nekkatul alibi ay développé wu ñu nit ñi dañoo wara a nit ñi fexé ba sénégalais yi nekk ay vrais citoyens nekk des vrais patriotes nekk des gens des des de nit yo xam dañu am plus manam ñu créer des gens aptes nous avons une population à moitié inapte dañuy vivre ci ben inaptocratie nit ñoo xamni mënuñu dara. dañoo màgg yara dal te loolu système dafa am système éducatif bu koy cautionné ci réew mi moo koy def te ñoom ñi nga xam ne ñooy nguuru pour loolu war a dañ kenn ci ñoom wutal la loolu moo tax man la ils sont tous des baratineurs. tey xale yi mhm. nan la ñu war a mën a def ba jëlee leen ci ci ci ci mbedd yi ban solution ngay proposer. très bien xale yi bëgg nañoo liggéey parce que xale yi Sénégal moom jeunesse su Sénégal bokk nañ ci jeunesse yi gën a déterminant yi gën a am jom ci jeunesse yi ma jaar ci biir Afrique. mais ñom alal ji ñuy passer passeré déséquilibre bi am ci réew mi mais xaalis bobu nañ ko jël créer ci ay industrie créer ci ay ay centre de métier créer industrie industrie yo xamni ne dina mëna recruter nit ñi Sénégal fi c'est une terre vierge dans beaucoup de domaines mën nañu créer plus-value bi euh, def mise en œuvre yenn programme yo xamni d'infrastructure yo xamni ci walu liggéey xalé yi dem liggéey fi xalé yi parce que xalé yi bu ñu jógee fii dem Amérique mais lu ne lañuy def

ba tey ñu ngi continuer faire, diagnostiquer problème yi problématique Sénégal de différence sénégalais parce que de 1960 ba fi may ni ñi ñuy problème Sénégal ndax Sénégal da leen jangal jox leen liggéey ñuy liggéey ba Nous ci nguur gi ñom ko ci gis denc na ci ba bëgg président. des présidents pauvres yoo ci bay mi lañu ñu jógee. am président pauvre ci histoire musulam Ah musul am jomaay fey moo ci gën a nekk xale gën a cee ñàkk xam-xam gën cee ñàkk xaalis denc na juróom-ñaar fukki million ci compte bi mu defee déclaration patrimoine avant muy muy muy nekk candidat li mu wax juróom-ñaar fukki million kon kooku pauvre mooy li ma la Sénégal dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñu ngi dund conséquence su précarité bi mooy ñi mel ni man nga xam ne dangay ngay juddoo ci askan boo xam ne ndóol gi xóot na benn xeetu xóotaay boo xam ni boo nekkoon milliardaire it mënoo ko duy ba mu fees foo laal day metti nga dem jëli ci ñooñu kenn ku ne information yi mu am ci niveau wu bi muy dund ñu jël ko relayer ko teg ko ci table ji mais ñi nga xam ne jaaruñu foofu dañuy am décalage ak ñoom malheureusement loolu la Sénégal di dund. Hmm.